dal leen ak jàmm mbokki internet yi safo di seetaan Buzz M TV Sénégal xalif général kullu murit Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér lundi le 15 avril président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey jii nag information dina fa dem seeti ko moom xalif général bi di Serigne Mountakha Mbacké Sénégal nag moo daal di jàllale boobee information moo ngi noonu Serigne Mountakha Mbacké tey lundi le 15 avril. dina dalal ki di president basirou jomay Diakhar fay kon nak eh, mu nek eh, eh, premier visitam moom president basirou jomay Diakhar fay bi mu jele rewmi mi ak léegi nek premier sortem tamit jëm Touba Mbacké seeti xalif général bi di Serigne Mountakha Mbacké ñukoy ñaanal sun borom subhanahu wa taala may ko ak wër mu yagg fi lolu mom Serigne Mountakha Mbacké tay ji le 15 avril kon bobé information wërna mom. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina dem Touba seeti xalifa général Serigne Mountakha Mbacké euh, bu ñu sukkandikoo si Sénégal moo ngi noonu